nanu xam ne Cheikh Ibra Fall la sëñ Touba liggéeyloo ci turu yàlla nu xam dayob ndigal nu xam dayob ki ko joxe ak ki nu koy ki nu koy liggéeyloo ki nu ko jox nu bàyyi xelit it ñun ñii nga xam ne ñun la ko sëriñ bi di defloo ndax li nu nu xamee mooy ak taalibe te ak taalibe dafa am nun koy màndargaal ndax jikko yu rafet rek mooy ak taalibe muy makarimal axlaax buñ neen diw ab taalibe la daal li muy tekki mooy diw ku amul yar ku amul teggin la ku jub ku lewet ku baax te gannaaw bu nu waxee taalibe ñëpp seeni xel dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon nanu xam ne kon ki tax nuy wax taalibe moom la nu bëgg nag mu feeñal nag la nga xam ne loolu la sëriñ bi dëxañ ci moom lanu ko jàngal yar ko ci toqi ko ci nga xam ne ku ñëw da ko ciy wut roy waaye moom royatut kenn muy njabootug maam Cheikh ñu ñëw ak yar ak teggin bi nu xamee nu ñëw akuk dal ñu ñëw akuk ràññee ñu ñëw ak set wécc nag nga xam ne nanu xam ne liggéey bi fan nu koy defloo ndax liggéey bu ne bërëb ban koy defee dina am màndarga mu musa mu musa dolli mbaa mu wàññi ko sa te liggéey bii sëriñ baa ngi koy liggéeylu si kër sëñ tubaa gii si Daaru Minam di kër Cheikh Modou Bachir tey sëñ Muntaxa di sëñ Touba kon muy kër sëñ tubaa nu xam ne biir kër sëñ tubaa la nu jëm ñan ñoo fa jëm njabootug maam Cheikh ma Fall sëñ Seera Fall nag wax nañ ni bu ko sëñ Tuubaa masaawoo dana yeeslu ay yoon soog a àgg si moom ndax warmaal gu mu maal jëmmam ja wax nañ ni sëñ tubaa bu ko masaawoo léegi léegi sax nopp yi daana tëx mbaa bët yi dootu gis ba tàmmoon na di ànd ak sëriñ Yaaram Mbay léeg-léeg suñ ko waxee ndigal bu nu génnee ba sori ba mu xelam dellu si mu laaj sëñ Yaaram ne ko ku tedd ki lu mu wax ndax war ma ju mu warmaal sëñ tubaa kon nag loolu dafa ànd dafa doon day tekki ni nun bu nu demee sa kër ga nanu xam ni bu nu jàkkaarloowul ak sëriñ bi sëriñ bi moom mi ngi jàkkaarloog nun bu nu ko gisul it xam nañ xam ne moom mi ngi nuy gis fu nu fa toog na nu xam ne sëriñ baa ngi sunu wet mi ngi sunu kanam mi ngi sunu gannaaw ndigal lii nu yóbbu nag muy ndigalul sëriñ Amdi Fall te sëriñ di bëgg liggéey bi mel nu kawe njortu sëriñ Muntaxa mi ko ko liggéeyloo nu fexe ba kuy dem na nga doon sa ambassadeur bopp na nga doon yow ambassadeur maam Cheikh Ibrahima Fall jàppal ni yow si sa bopp yow la ñuy xool yow Cheikh Ibrahima Fall. su boobaa boo wéeteek boo wéttalikoo doo def lenn lu wuuteeg li nga xam ne loolu la sëriñ bi digle loolu la sëriñ bi bëgg sëriñ bi daal ab yare ki teggin la woote sëriñ bi ak dal la woote sëriñ bi ak teey la woote sëriñ bi nu wane fa jikkooy maam Cheikh Ibrahima Fall la bëgg nu def ko fa sëñ bi dafa bëgg nu wane fa melow maam Cheikh Ibrahima Fall sol sol gu yiw mooy sol gu jot gu mel na mu war a mel góor ak jigéen waaye bu nu ñëwee nag ànd ak dal taqalikook mbooleem lu mën a weddi sunu mandarga yi nga xam ne moom moo tax nu nuy mandargaale Cheikh Ibra mooy ni seerob daa def rek li gën a bon si ab murit mooy wayefal lu diis wala diisal lu na nu xam ni ay murit lañ kon doxinu murit lan war a dox melukaanu murit lan war a mel ab Baay Faal moom fu mu génnee di dox kenn wëta nattable ni ab Baay Faal la kon sëriñ bi sëñ bana sëriñ bi loolu la waxoon ni nu dolli ko si dénk ko murit yi di ñëw képp koo xamante ni kii nag ñëw na te indi beneen xalaat bu tabbee sunu biir nag nan ko ràññi bu baax te xam ko ndax kat mbooloom Cheikh Rafal moom tàmm na bariyaana léegi léegi nu am ndigal am nu ñëw bëgg a rax bëgg a indi lu si bokkul waaye su boobaa nañ ko teel a ràññi teel koo yemale fa mu war a yem képp ku fi indi lu dul yéene ju rafet nag ak bëgg liggéeyal sëriñ bi ba ngërëm lii tabbi ku ko fi indi xamal ni moom moom moom liñ naan dereti bopp la du mooy mbaggum boroom sëriñ bi moom noppi na jiitu ñu ñuy jóg li sëriñ bi bëgg si liggéey bi faw mu am ko kon nag ñun nañ fexe ba bokk ñi si ñiy tax mu am loolee mooy suñu ndam loola nag maa ngi wax képp ku bàyyi koo fi barab te liggéey bi tax laa jóg nga jëm si tuubaa nga indaale pas bu sel indaale pas-pas bu rafet loolu mooy ndigalu sëriñ bi gannaaw ba leen sëriñ bi santee nag si lii ngeen ko defal nga xam ne mënu woon a ñàkk taxawaay bii ngeen ko taxaw sëriñ baa ngi leen di sant sëriñ baa ngi leen di gërëm sëriñ baa ngi leen di xamal mi ngi si seen kanam mi ngi si seen ginnaaw lu ngeen nekk manga sa lu ngeen nekkul nekku sa li ngeen di def léppit nag si ndigalam rek ngeen ko defee kon nag loolu doy na sëkk xel mu dal li si des nag Fall day seere boo xam ne dama koo bëgg a seere loo xam ne samay kàddu yu bopp la dama koy seere si jëmm yi toog muy sa njabootug bopp gii di njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñu la bëgg a ngi nii ñu la bëgg ñu la sopp ñu la fas yéenee liggéeyal te Cheikh Ibra Fall rekk tax amuñu gën bëgg ba yàlla tegee lii sa loxo ba fii mu ne ñii teew fi sa kanam ak ñi teewut te mel ni ñoom kenn ku ne nga wéet nga wéttaliku yaa ngi ci dox ay jéego yu tax ba li sëriñ bi bëgg lépp mu am ko sa mbégte rekk la ñuy sàkku ñoom ñëpp rawatina nag sa doom yii ak sa rakk yi nga xam ne yaa leen joxoon ndigal ñu wéyal liggéey bi nga xam ne yaa yaa leen ko sant ñu la koy liggéeyal sëñ Modou Fall mii doomi sëñ Amdi Yaasin di jëwriñ ñi daayira Jisbul Murid di jàmbaar lool ci liggéey bi ba nu ko àndee yàgg na waaye liggéey bi fu mu àgg ak njàmbaaram ak dogoom ak pastéefam moo tax mu àgg fa magul ci mbooloo mi magul ci ñi mu jiite waaye ñëpp dañ koo doyloo ndax bëgg gu mu am ak jub ak fulla ak fayda ak xam gu mu xam fi muy teg tànkam si yoonu liggéey maam Cheikh Fall bii mosu koo teg foo xam ne fii dañ naan sëñ Modou fii mu ko teg waru ko faa teg moo taxit ay baayam ak i magam ak i rakkam yëpp topp si ginnaaw jiital ko kero ba nu nee dañuy war a def assemble générale ba nu ñëwee assemblée générale li muy tekki mooy dañuy soppiwaat bureau bi ñëpp danoo maase ni sëñ Modou moom fi mu ne woon kenn xalaatul di ko fi jëlee ndax li li ko war lépp mi ngi si mooy mi ngi nii sëñ Modou Fall ànd ak waajuram yii sëñ Bada ak njabootu Cheikh gii ñu àndal ñun ñooy nekk ci seen biir di waxtaan ak ñoom di yëg ñoom li nekk ci ñoom ñu di ko yëg di ko xam moo tax may seere lii ci seen jëmm yii ñu teew ci kanamu sëriñ bi ma am kàddu ne naa ne ne di ko seere te yàlla rekk tax ak Cheikh Ibrahima Fall ak sa jëmm bisu suba bii sëñ bi doxoo joxoon ndigal mu tàmbaliwaat liggéeyu stade bee nga xam ne la taxoon ñu taxawal ko mooy xew-xew yu fi jaaroon gannaaw ba xew-xew yooyu jàllee nag sëriñ bi joxaat ko ndigalul mu tàmbaliwaat liggéey ba waaye naka la koy tàmbalee mooy ni ko sëñ Seex Jëmb ànde woon ak yéen rek loolu rek la koy la koy doxale mooy jiital leen ci kanamam rek te du leen fakkatal du leen soññi du leen yàkkamti ndax xam na ni dox bi ngeen di dox dox booba doy na sëkk mat na sëkk ndax taxawaay ba ngeen mës a am liggéey bee barki démb sëñ bi dem na fa demal na fa boppam xool liggéey bi dox xool liggéey bi yëpp ba mu àgg xolam sedd lool mu xam ne liggéey bii de ñi ko taxaw woon ba mu agsi fii ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi kenn rekk lañ ci gisatul muy sëriñ Cheikh Jëmb yàlla nañ ko yàlla fayal moom ma nga xam ne moom la ko sëñ bi joxoon waaye nag sëñ Cheikh Jëmb demut fen ndax mooy moom dafa wax ni ba mu toogee fii ba tey kenn déggagut mu wax mu soppi lenn lu fi Serigne Cheikh Jëmb bàyyi woon kenn mësu koo dégg waxtu wu ne day wax ni li fi Serigne Serigne Cheikh Jëmb bàyyi woon Serigne Modou Aminta bàyyi ko fi amuma si lenn lu may soppi wala lu may defaraat kenn ku amoon ndigal si Serigne Cheikh Jëmb ndigal la nga amoon mooy wéy. ndigal lu ne rek lu Serigne Cheikh Jëmb bàyyi woon fii rek dafa wax ni ndigal loola mooy wéy ku fi mës ñëw yeesal si ndigal rek loolu la Serigne bi wax loolee mu daa ànd ak yéen nag moom la fas yéene àndewaat ko ak yéen si liggéey bi bu nu demee bu subaak jàmm sëñ bi dafa wax nu xëy sa liggéey ba nun ñëpp bu nu toogee bëgg nañ añ yi onze mu noppi bu nu añee sa liggéey ba ba noppi nag mbooloo mépp nag àndandoo nag wuti kër sëñ Muntaxa midi wala une fekk nu fa nu dem toog fa nu war a toog ñi war a organiser organiser sëñ bi daa bëgg quatre heures minute bu mujj bi fu mu nee teng turu yàlla wi jib ñu bañ see dolli benn minute waaye bëgg naat bu ñu demee ba quatre jotaat sa ëllëg sa fu quatre heures minute mujj bi fu ne teng ñu wàccee si karsi bu kenn waxaat benn baat amul benn benn amul beru di yëkkati fee amul dara ni ko sëñ bëggee quatre ba quatre heures rek bu si dara dolli ko waxtu nodd wi waxtu wu jibee ñun ñëpp maa si àgg suuf bu nu noddee ba nodd gi daanu si kër si jógaat ni nga loolu la jot li si des nag yéen yéen a ko organiser xam ngeen na muy doxee muy kuréel ga sa biir ak gasa biti sëñ bi doyloo na leen te la ngeen sa def doy na ko sëkk kon nag loolu moom la sëñ bi bëggoon ñu ñu bu nu jógee foofa nag alxames ajjuma bu nu xëyee rek wéel nag liggéey ba rek amatul taxaw loolu la sëñ bi bëgg te dafa ñaan si doolee Cheikh Rafaal liggéey boobee daal di àgg ba mu jébal ko sëñ taxaa moo ko waxal boppam moom mi dafa ñaan liggéey bi na àgg balaa yàgg ba mu jébal ko sëñ Muntaxa ba ñu tàmbali leneen ndax koor gaa ngi dëgmal te koor gi rek bal na faa àgg bëgg na liggéey bi bu aggutit sori sori goo xamante ni gii bu nu bàyyi koo si koor gi ba dellu si dañuy àggale waaye la say def du doon lu am solo toogaat di déglu sëriñ bi kon nag loolu mooy ndigal li si toppoon bëgg murid fu nu mën na ne si àddina nu yëg ko ndax daa waxoon ku ñëw fii teew fi kanamam nañ ko fàttali liggéey boobu ndax wax na ne daa bëggal ñëpp njariñ te liggéey bi géeju njariñ la goo xam ne kenn ku ne mën nga see duy ba feesal te te sa aajo faju nga mën di faj yeneen aajo kon nag liggéey boobu mi ngi si seen loxo yéen ñëpp ni ngeen ko taxawoo woon sa njalbeen ga ànd ko sëñ Cheikh jëmb ba fii mu ne amaan ngeen digalul wéyal taxawaay boobu wala ngeen gën koo yokk ba ndam li si sëriñ bi bëgg lépp mu mën koo am jërë ngeen jëf ba salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Fall